jërëjëf mbokk internetu Leewtoo TV tey ñu amaan mbégte présenté leen seen sixième numéro jotaayu làmb jotaayu làmb tey rek mu am mbégte dalal benn invité de marque ñu ngi koy wooyee Zos ñëpp xam ko ci làmb ji Zos maa ngi lay nuyu di bàyyi nga nuyoog euh, internetu Leewtoo TV. oui maa lay fay euh, Cheikh bi mm-hmm. euh, encore di yàlla jul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sant sama waajur Eh, sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel eh, sant Sénégal yëpp sant monde entier si Leewtoo TV eh, aussi ngeen nekk ngeen def liggéey bu am solo vraiment di la ñaan yàlla ca kaw ci kanam. jërëjëf Zos émission bi nag mën naa ko seq ak mbay Babacar ñu war a ànd poser ay questions Zos Mbaye Babacar maa ngi lay nuyu di la dalal. jërëjëf Assane Waalo borom Linguère maa ngi lay fay. di nuyu mbokk internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV yëpp di leen euh, jaajafal bu baax wante di nuyu suñu invité bi di Zoss di ko dalal jàmm ci biir kër gi naan ko fii sa kër la. jërëjëf dina waxtaanee nag ci carrière Zoss dinañ waxtaanee ci dóor dóoraat bi mu koree jiitu ko dinañ wax ci ak sociaux yi muy def maanaam don de sang yi dinañ wax ci saison mille vingt 2020 2021 dinañ wax ci grande affice également yi fi jot taxaw mais pour démarrer damay def benn présentation ci Bezos mi ngi créé mi ngi door carrière am 2003 2004 saison boobu la ko commencé ki njëkk a ci carrière moom mooy Pape Pape Sène après nag jot na def 24 combats mu am ci 12 victoires 12 défaites euh, Zos jot na daane booy Niang 2. ah ma 12 défaites 12 ñëw après <laughs> dinañ ci ñëw waaw jot nga Guy gi tijaan fay Issa Pouye Balla Diouf Boy euh, information yi leen jot am boo déggee li nga wax li ma wax. ban analyse nga ciy def. waaw no xam nga loolu euh, man dama yàgg am xeex ci làmb. dëgg la. commençant par les arbitres boo xoolee dafa mu combat yi ñu considéré défaite te or que dama ci am sans victoire. la voilà premièrement mooy sama combat Issa Pouye bu njëkk bi. oui combat boobu Eumeu Sène moo ma indi. Eumeu Sène Eumeu lu tax mu indi la alors que. yaa ngi bokkoon écurie d'accord non <laughs> loolu sunu écurie yi yàggul. d'accord ñun man ma seen ñoo bokkoon écurie. loolu taay si kii la woon bul faale. déedéet taay si nga. avant bul faale. ah bon écurie Pikine la woon écurie Falaye Baldé. avant boobu ñëpp écurie Falaye Baldé lañ nekkoon. lañ nekkoon Falaye Baldé ma amoon ak Pape Diop Boston. dëgg la n'est-ce pas. Mhm. donc euh, man ma seen. Baboy mu nekkoon sunu grand ma seen sama grand la parce que moom mag. donc euh, mais moo ñu doon gën a jàngal bëre. comprendre nga. Mhm. donc euh, foofu lañu nekkoon boobu ñoom Gilles Balde ndem si yàlla Papa Balde affaire yooyu noonu. Mhm. donc boobu ñoom Ama ay xale lañu woon. d'accord ñoom Modou Lo ay garga ay xale lañ woon. sa combat gi saako bi. donc combat boobu ñoom ñoom mënoon indi. Mhm. parce que ñoom ñooñu doon tette. boobu mu nekkoon sama premier grand komba Issa Pouye mën bëre mën bëre bi nga xamante ne ñëpp dañu ragaloon. léegi bi ñu dawee bi ñu ànd bi ñu bi ñu bi ñu contacté dalante xama nga ci la daw cee sama tànk def ma def tour de hanche ma daw wër ma ndomba. d'accord day wër ma ndomba ma daw deux pas kal bi. def def tour de rein plaqué ko mu toog. d'accord non nga daan ay toogee jóg <laughs> daan ay champion. puisque ah. ñu ngi fii li lim ay Boy Niang du n'importe qui. ci wàllu bi ma daanee loolu sax moo gënoon garaaw parce que Issa boobu. mën nañ ne fii ñoom boo ñaar doo toll fa la tolloon. Mhm. doole bi bari na. Mhm. ah bëre bi kenn kenn kenn kenn kenn ñu naan ko la kay ma xaw ma lan. Mhm. xam nga naan ñëpp ragal ko. ma jël ko daan ko. ma ko daane di jóg di dem mi ngi toog. billaahi wallaahi tallaahi si toor boobu moo entraîné sama combat. moo moo ko arbitré. si toor woo ko. ne ko da ngay bëriwaat. ñëpp dañoo waat tribune bi wàcc. ñëpp di ñibbi ñu ne ko non lii mënul nekk. su ma la déggee ma ne ma seen na ma non doo bëriwaat ñu ne kan leen xool échappe yi mi ngi toog yàlla métti xam na loolu. donc doo comprendre ko jaay ne ma non doo bëriwaat ñibbi mu ti loxo échappe yi. yaa ngi dégg ma ñëwati contre Xaalim Njaay 2. oui benn blessé bu ndaw fii si soor tasaar combat bi. Siteu daf la contre loolu laa wax ma ne je comprendre ma man comprendre ma mu arrêté combat bi joxe victoire bi. leen ci yéen ñaar. non duñu waxtaan te pourtant sama grand la boo xamante ne ñoo bokk benn koñ maag rakkam góor ñoo doon ànd guddi ak bëccëg bokk benn année bu ñu judd. Hmm. mais après doo comprendre yan circonstance maam déglu ma fii de. loolu dalaat ma encore ma jële ti Papa Sow. def trois appuis loolu moom boo leen teg boo leen kii teg leen ko mu leer. moo ngeen gis ne ma neen wax ma def trois appuis ñu war a bëriwaat ñu ma jox ko victoire bi. muy trois même si toor bi. déglu ma rek seetaanaat duñ ko gis muy trois ma ñëwaat di da daan daan daan isaapu yi. waaw bi ma daanee isaapu yi déglu ma fii de ma daan isaapu yi bay jóg mu ñëw fi sama tànk tegoon mu suul ko. si toor suul loolu. mu suul sama tànk bi. ba léegi mënuma la xam signification suul sama tànk lan la donc mu nekk ay affaire yoo xamante ne loo métti laam moo tax ma ne su ma la nee mhm. du ma considérer sa bopp ci loo comme defet mhm. parce que man guerrier laa mhm. guerrier mooy koo xamante ne il est parti de rien du tout xam naa ñu nekk ay booy ci koñ di ay cent francs lu ñu ndekkee tëñu tey par exemple kooku bu demee ba ba nga xamante ne dafa war a nekk quelqu'un il a besoin d'une motivation mais am na motivation xamante ne ci yàlla la jógee man moom laa am mooy nit mënu ma découragé loo nit mënu ma xamal dara aussi benn jos bi ngay gis incha allah moom ngay gis moom ngay kon na gis am xaalis du ma changé ñàkk xaalis du ma changé su ma yore ay milliards tam du ni ma mel nii laay mel ni ma doon changé changé naa ko ba may xale ndax en 2006 sama yàlla def millionnaire xëy loolu tam ñu bëri dañ ci dañ ci doon jaloux comprendre parce que pourquoi booy bi nekk fii di buuju fonde jékki-jékki xam nga yor fi ay millions mais loolu ndimbalu yàlla la àndal moo tax mënu ma considérer ma ne sama bopp mm-hmm. yooyu ñuy wax noonu ku xamul histoire Zoss mooy wax loolu d'accord mais man nit mënu ma non je waxtaan tuuti rek nit mm-hmm. mënu ma mm-hmm. découragé mënu ma sax xam ndax loolu fi ma jógee metti kon du dem ba yegg benn niveau ah, naan damay découragé sama équipe maa ko créé depuis 2012 depuis 2005 laa créé taxawal équipe bi équipe bi gis nii rek indi maa ko taxawal ci naka. man maa woote réunion boobu écrit parcelle tout tudd sax Rock Énergie. d'accord mais baa bay demee Italie. Mhm. ñu bëri dañuy jaawale naan noo yàgg Modou booy la loolu fekkewu ko. Uh-huh. moo garga boobu ay xale lañ fekkewuñ yooyu. nañu bàyyi di bool loom den bokkul ñooy aw maa ñoom benn xaar ma yàlla. biñ koy formé ñoom ay booy lañ. loo loo fekkewul noo ciy exprimé am ñoom ñu ngi wax histoire xamuñu ko ci la baa bay demee Italie ma ne leen nañ def réunion bi kër ga. parce que léegi ñun jàng nañ bëri mën bëri man la Xaadim Gaja Malick Matraïs taala Gaynde ah ak Dolf ñoo nekkoon ak Mathieu Pereira ah, ak Grand Jean ak ñoom nekkaa ñoo ñoo nekkoon ak ñoom Baaji ñeneen gaa quoi ñoom conke sin ñoo nekkoon mag ñi première ñëw sunu kër lañ ko def mu nekk équipe parcelle ñu ne ma léegi baa booy woote état ñu ne ko Zoss moo am fitu woote bi këram léegi prévision yi suñu kër a nekk ba tax na tey bi ndee ba màgg ñu jóg jël bi def jox ko dem si yàlla si Demba yàlla ko yàlla yërëm loolu may ñu xamul lu ne la ñu wax lan mooy sa relation Lo bu on a une très bonne relation bu sincère parce que man ama xaar ma yàlla ak mbër mhm. ndax ma si détails yi mbër yi nekk ay fii la farak mhm. nii la man sama yoon nekku ci loolu man adduma amoon business keroog récemment gis ngeen Balla bi mu nekkee ba Màkka jël vidéo di ma ñaanal. donc mënuma am ak nekkuma ci guerre boobu noonu. boo gisee ñoom ñaar sax léegi ñu nekk si jàmm kon ñu ñëpp nañ nekk si jàmm. Uh-huh. Babacar tey ñu dañ dajal Zos. Uh-huh. lan la lay Zos di fàttali loo boo ko xoolee. boo su ma xoolee Zos sama xel day dem ci bi muy soog a dugg ci làmb Zos nekk benn mbër ba nga xamante ne bii dafa ñëw rek bokk xaarul. istil uh-huh. boobu noonu ñëw andi dóor dóoraat soos soosaat coop coppaat andi istil ba nga xam ne. kenn mosu ko gis ci làmb man man dama bëgg yooyu dama bëgg challenge dama bëgg nga xam ne da ngay créer di innover jos ñëw rek participer jos ñëw rek journaliste bu duggee ci làmb journaliste yëpp daw topp ko ndax arñe bi muy andi day ñëw summeeku bandi bandi lu fii wane strom yi xam nga eh, inspiration boobu noonu champion naka la nga la dikkalee loolu la ma dëkk yëpp di sonalee parce que <laughs> parce que bu ñu bëggee yoo lay wax sa caris léegi la joxtaan DG mhm. donc euh, parce que Sénégal ñooy soxla loolu parce que xam nga làmb euh, sport challenge la sport challenge la quoi day nekk euh, day nekk loo xamante ne dafa soxla show yaa ngi dégg bu dee Amérique bu ñu bëggee def buzz mhm. autant jaral na leen sax tiire nit exactement pour def buzz yaa ngi dégg fii boo xoolee mbër yi def show ñoo ëpp supporter mhm. parce que nit ñi ñoo bëgg du question victoire bi war a défaite bi mais ñi ñu ñoo bëgg kuy ñëw xam nga te nit dafa moo den ci deret bi la xam nga ci yaram bi la nekk da ngay mën a ñëw ngay tàngal boo tàngalee sponsor bi làmb ji dañ ciy làmb ji dañ ciy prêter attention sponsor bi tamit loolu mooy jaay markam yaa ngi nii say Jador tey uh-huh. Jador boo ko indee teg ko fii uh-huh. muy sponsor bu baax ñuy saluer de passage à le DG Ndiaye uh-huh. le DG Aziz donc mu nekk da soxla moom visibilité produit bi. boo ñëwee tax na yàlla baax na. <laughs> d' accord yàlla yàlla kii rek ambiance boobu nga wax ci <laughs> ci làmb ji ambiance boobu nga wax ci làmb ji daanaka gisatuñ ko. Uh-huh. est ce que du ne loolu moo tax sponsor yi xaw a retiré mais da ciy bokk parce que dañ gars yi dañu wàññi xumbaay bi xumbaay bi dañ ko wàññi. Uh-huh. il faut signataires yi tàng. di saf sap di saf bañ naan waaw lii ëpp na. Uh-huh. comprendre nga loolu mooy làmb. waxuñu leen nag ça n'a rien ak def violence. xam nga ñi ni dañuy jaawale. show ak violence. effectivement waxuma ko violence. Mhm. man man ci paix laay dox. ba boo ñaar dóoru cour ba gi dama ko baal man ci paix laay dox non jàmm rek laay dox. comprendre nga woo ma benn violence. Mhm. mais mën nga show. Mhm. mais di nga show ak nit ki sax boo paree ngeen nuyoonte exactement mais il faut ngeen tàngalante signature dafay war a neex. mais après bi nga defee parcours bi mbay wax nga def ay combat yoo xam ne ñëpp remarqué Zos. Uh-huh. mais ñu dem ci di dem mais Zos di euh, retour euh, di def retour di xaw a reculer nga dernièrement sax quatre défaites nga tegale avant uh-huh. ngay bàyyi lu waral quatre défaites de suite yooyu. waaw loolu moom xam nga TNT bi. Uh-huh. non genre tournoi boobu noonu. tournoi bi dañ ma njëkk wax ne ma. loolu fu ma toog dama koy wax. xamoo koy dajal dañ koy def tirage loolu léegi yaakaar naa ñëpp jégoon nañ ko. mooy tournoi bi nga bokkoon. tournoi ba bokkoon ñoom dañ koy def tirage. Mhm. ba pare ñoom si boobu ñoom si Ama Baldé na ko Zoss ngay dajal demal nga préparé ji. Oh. man ma jàpp ne tirage man say sama xel jàpp Ama Baldé soo ma jàpp Gouye Gui soo xel bi jàpp Tapha Tine. Mhm. njëgate yoo. ñoom dem nañ waajal Ama Baldé dama koy ñaanal nag mu nekk lu ko jik mais dama la wax ce qui xam nga saltam ba tam victoire la sam booy la. yaa ngi tey balaa maa balaa ñu naan Ama Baldé boo fekkee na commencé naa di nelaw man chaque jour damay xëy di nelaw suba ba ngoon. <laughs> fekk Ama moom mi ngi ci yow. mais si si parce que mbër da ngay njëkkee nit njëkkante jóg. affaire yooyu da maa topp topp topp moo ma topp nag. yooyu ci tournoi boo ma topp boo ma topp boo gisee défaite yëpp presque ñoo bokk ni ñu mel. Mhm. ci xam ne même dynamique bi. Mhm. moo continuer mhm. comprendre nga. donc loolu mystique la am na ñu dem ba ci biir naan bopp bi baaxatul ak ay waxu dof xam nga Sénégal moom expert dañuy bari fu mu toll nii corona bi yaa ngi déglu. ku nekk di wax. ku nekk di wax ci vaccin yi. d' ah, loolu nga arrêté sa carrière. Mhm. lu tax xale bu toll ni yow nekk ci laam nekk sa digg doole ngay arrêté sa carrière. no j' étais un nag. parce que loo xamante ne musul dal si àdduna. Mhm. teg la quatre défaites dafa mhm. metti quoi. te man nitu jom laa ko jom boo xoolee ñun ñooy gëree yi lay gëree réel néega seenu Afrique bañkat nga ko bañkat lañ waaw ñun boo déggee ñun fu mu toll nii day tubaab bi doon def sunu maam yi ñun noonu la defaree tubaab bi fu mu toll nii ñun ñoo leen defaral bagage comprendre ñu ñooy guerrier yi nga xam ne ñooy ñëw. jël relève yi quoi tubaab yi fii dañu xamee ne gars yi ay ay der lañ. mais est-ce que est-ce que est-ce gisul ne gisul ne gisul ne xale yi léegi dañu ñëw frais. Mhm. am doole. andi kattan te moom euh, par rapport ak yow sa taille ak sa ak sa ak sa corpulence nga gis ne fi mu toll nii daal làmb ji mënatoo cee am lu bari. nga nga yolleeku quoi. waaw léegi. kan moo nga nga nga nga def. ban booy moo fi ëpp capacité non nga naa ban booy moo fi ëpp capacité ñi ma daan non yow moom franchement daan booy booy yi fi doon bandi bandi lu yëpp. dafa dama ne la booy yooyu noonu. ñaari booy ci moment boobu la nga doon am ci fin bi yaa doon. mais grand dëgg ma ñi wax yi ñi ma la tudd fii ñoo mag te ñi ci làmb ji di bëri man je te de nga am benn lu mel ni calis wala dara bu nekk sa ginnaaw jël la motiver da ngay nit da ngay soxla sa àdduna. est-ce que ay dëgg. souvent da ngay wét ci combat bi gars yi nga amoon nga xam xamante ñoo doon encourage ñii voyagé nañ. ñu ci bëri dañu dem ci kaaw bi comprendre nga nga dese ay genre défaillant yoo xamante dañuy dem mbër bi di leen fay yenn mbëri di leen fay xaalis yi ñëw jël nuyu ay galaaj di jaay c'est que problème yooyu laa nekk est-ce que également succès jàpp la nga baax na non non c'est mystique c'est pas succès en fait c'est dans le c'est la ñuy téye uh-huh. c'est psychologique mais ñu bëri ngi fi booy ngi fi dem États-Unis bàyyi làmb complètement te uh-huh. pourtant booy waruñu bàyyi mais làmb moo leen ban moyen la ñu am c'est loolu la nit ñi war a xoolaat da ngay bàyyi làmb du ay kii grand man su ma bëggee doolee su ma entraîné dem salle ma la entraîné sa su ma la wanee sama biceps si dangaa ngaa kii du man te man am doole naturel man séeréer laa da am doole séeréer xam nga yooyu maa mi yooyu laa yor <laughs> ma la jàppe da mën bëre dama fit ma ne dama mën bëre dama fit dama mën xeex hmm. te dama sadik nga sadik waaw dama sadik mën bëre am doole am fit yaa garga ku daa boo xoolee ñi ma daan ñëpp garga mën na ma daax a bëre ndax ma li nekk ci moom maa def ci moom mhm. loolu mooy nekk ci garga hmm? li nekk ci garga yaa ko def ci garga maa ko def ci moom mhm. moom na taxaw wax na ko man li nekk ci moom maa ko def ci moom mhm. kon su ma daaxee bëre loolu gamaanaan mais pourquoi bokk leen style non moom moom cosaan la indi cosaan lay indi comprendre nga mais man oolu oh, man kii laa you know man ji laa <laughs> ji nga non ji laa man am nga xëy na moom culture bi muy def ku nekk li ngay sentir quoi. c'est bon pour moi mais man xam nga man ma yëngalee. yéen nante dañuy taxaw ne non xoolal ba doon bëri nii laay mel. d'accord donc ma def yaram leen def chaîne xam nga Assane loolu loolu gisoon nan ko ci yow ba bu soo mosaa di bëree mën naa ne euh, euh, euh, stade bi ñu ëpp ay jigéen lañ doon doon parce que Zoss dafa bëri woon ay supporters jigéen eh. loolu tamit ma nekkoon na lu ma jaaxal ci yow trop ambiance bi la xaw ma lu mu demee noonu daal sa sa sa sa sa diggante ak ak ak ak jigéen ñi ba ñu nekk sa ay fans ah sa diggante ak jigéen ñi ma <laughs> ndax daajee ko na de <laughs> non musuma dégg sa diggante jigéen ñi. yaa ngi soog a dégg tey kon jombi nga. kon xam naa maa indi message wala maa indi baab yow loolu ba nga xam yow dama laaj lu ma xam luy loolu. waaw ah, mais dañu ñëw non yàlla mooy jigéen ñi dañ doon ñëw estade lu bëri. waaw mais yàlla mooy dogal mu am sa majorité nekk ci benn part. genre dañu ne jigéen ñi souvent ñoo may supporté ak xale yu ndaw yi. Mm-hmm. xam nga ak surtout mooy li ma la wax xam nga mairie boo dema stade tey sa mairie tey moo la ma la waxee mairie ma naru nuy Sénégal kenn du xam nu mu toll yàlla ma dëggaloon mais boo ma laajee question bi da nga may jaaxal <laughs> d'accord ayca bi noonu ayca Assane ñu jógee sànq yow jommi na tey <laughs> da nga dama jommi te diggante jigéen <laughs> xam nga xam nga tamit ci benn man sama gis-gis naa ne jigéen mhm. dafa dafa dafa bëgg ambiance mhm. dafa bëgg ambiance te Zos ambianceur la mhm. Zos bu ñëwee da yëngal jigéen ñi dañu bëgg dañu bëgg ku yëngal peut-être nga jël arme comme loolu mais man vraiment je comprends pas tax la moo tax ma bëri ay supporters jigéen waaw loolu lépp lu ñëw nag ci yàlla la jógee d'accord ñu def benn transition jógee si sa carrière léegi nag ñu dal ci dóor dóoraat nga créé door dóoraat mhm. mais après da nga ko créé kenn sentirul la gannaaw ci gannaaw écrit bi lu waral loolu pourquoi sentirul la trop ci gannaaw écrit bi sentir nañ ma trop sax ah. waaw pourtant souvent dañ naan Zoss présente présent wul ci ginnaaw. booy présent présent ça veut rien dire. man maa créé écrit bi. pourquoi non créé. waaw mais mais ngay dem entraînement di. côté booy yi ban booy. bu amee ñu gis la ci gannaaw. booy non non non non n'a parce que boo dama créé équipe. équipe bi ku ne dafa lu muy lu muy wu. créé sama société. Mhm. nekk directeur société di di liggéey ay affaire créer association beneen buy jox ci sa social créer lii créer lii j'ai j'ai pas mal de choses à faire donc équipe bi am na entraîneur comprendre nga je suis le président président waaye mhm. je toujours le président kenn mosu nekk président ku duma donc euh, ci papier ci papier quoi ci papier quoi loolu ci pap yi la rek comprendre donc euh, euh, bu ñu amee combat entraîneur day ñëw parce que loolu dama ko yàgg dëggoo seen bopp ngeen gis ma ngeen ñàkk a gis ma gis da nga war a xam ne yéen da ngay liggéey sa papa sa yaay ngay bàyyi xel nga dem gañe ji dafa loolu dama dugg ci bopp booy parce que bëgg ma dugg ci ñoom ragal boo ma dem bëri euh, ko suñu làmb door bi jël nañ ko mhm. comprendre nga yooyu sama écrit da jël kon bu du woon bu ma liggéeyu doon ba egg foofu du egg du am foofu comprendre nga la preuve bu ma xawee ñàkk jot da ngay dégg na am nañ ay problème tas nañ fii nii mais su ma toogee woote assemblée générale di nga xam parce que boo yi dama leen tete dama leen teb bi ñuy xale nekk fa ci tas mu ma lu nekk voilà ci tas boobu mbër yu bëri jóge nañ dóor dóoraat dem ci yeneen écurie est-ce que du ñàkk présence boobu kenn jégoo fa non am na ñoo xam ne ni am na ñu voyage yi non kenn jégoo fa d'accord lu leer laa lay wax balaa ngaa jege si écurie man maa lay defal papier bi fooy jógee d'accord wala ngeen fàtte règlement CNG yi euh, waaw ah loolu ay wax la ku fay jógee dafa am papier bu ñu lay defaral te papier boobu moyen moyen moo ko defar dafa am budget boo ma ne moom ngay teg ci taable bi. d'accord jógewu lan la man maa leen jox man maa leen jox feu bu Modou Lo amee combat ñi dem jàppale ko bu Papa Sow amee combat ñi dem jàppale ko bu woon sama accord loolu ma neexoo ñoom duñ ko def. ndax sama écurie lañ nekk. est-ce que euh, Dóor Dóoraat am na fonds pour euh, financer activité euh, écurie bi. non amul fonds pour ak ak euh, financer activité. yan mu yan moyen wala voie ngay def pour que mu am ay fonds. samay propre lépp lu may def samay propre fonds depuis bi écrit ba léegi may jël samay propre fonds di def ci écrit bi ci këyit yi ci affilié wu CNG lépp maa koy def sama xaalis tabaski doroon jot sax ma xotti leen ñoom ñëpp ma jënd leen mbase ñu sol ko comprendre nga. moo tax actuellement ñuy soxla souvent soutien ay subvention ak genre fonds Covid yi. pour mën di am doole parce que dañu pare léegi pour di di di tëgg sax suñu bopp combat écurie bi léegi day am promoteur. ci biir écurie waaw léegi day am comme ni muy amee entraîneur. am secrétaire général noo lay amee léegi promoteur. léegi loolu la ñu bëgg a teg ci écurie yëpp ku ci amul fulla nag amoo promoteur yaa ko def mais équire yëpp incha allah dañu war am promoteur te loolu nañ leen ko conseiller ñu def ko. li nga wax ndax bu ay fonds ñëwee te ñu jox ko seen promoteur ñu tëggal seen bëri combat. li nga wax permettre na moom moo dugg ci benn volet mooy volet ANELS. da la gis benn jour nga dem arène nationale. ARELS ARELS voilà nga dem fa di kaas comme quoi que ne yéen da ngeen a soxla euh, da ngeen a impacté ci Covid bi te war ngeen am ndimbalu état bi. mais loolu la ma loolu loolu loolu moo waraloon sama xeex boobu parce que dañoo ne ARELS genre li ñu li li tax may ñëw foofu. Mhm. jàpp seen liggéey. Mhm. c'est parce que ñoom rek laa gis ñu boole président écrit yi mhm. boo ko kennoon defan tamit dama si jàpp parce que munoo la mooy ay lutteurs en activité ay lutteurs VIP ay lutteurs la mooy loolu. d'accord ci terme yooyu. non je suis pas d'accord. lu tax d'accord ci. parce que amul ko dafa am considération foofu. Ah. loolu kenn du ko def dafa am dañuy ñu sous-estimer. ak ñii ñi gis seen bopp. boo nee lutteur VIP di nga tëb Tafa Gueye. boo nee lutteur VIP di nga tëb Mouhamed Ndao Tyson. di nga tëb di nga tëb Yékini non déglu rek mhm. kan moo leen gën nekk VIP mais ñooñu ay ancien la euh, mais mais attends non mais nañ jox ñi ni seen cër laa pas ay ancien bàyyi leen wax yooyu mhm. nañ jox ñi ni seen cër kilifa nga xam ne kii moo sa kilifa moo la yar mhm. moo la mag moo tax loo ci gis ay booy toog fee Thiès woote seen ci booy fee woote booy mais bu président écurie yi wootee làmb loolu la soxla président écurie yi ñu wootee ban mbër moo mën def sans président écurie pourtant ñee mën nañ dem sans président écrit mën mën nañ dem mënuñ dem sans président écrit te président écrit bu wootee bu dee am nga fulla ak fayda ñoom ñëpp dinañ ñëw. waaw mais li ñu gis mooy mooy responsable écrit yi li genre euh, leader euh, écrit bi mbër bu mag bi moom moo leen ëpp kàddu ci écrit bi. parce que président yi dañ ñàkk fayda dafa ñu président yoo xamante ne amuñu fulla. loolu nga ko gisee. daman maa wax dafa président amuñu fulla amuñu fayda. parce que. moo boo dirigé wul boo dirigé wul sa sa sa sa ténor mu lay diriger yow parce que amoo fulla yow parce que da ko yaakaar ci ay moyens wala da nga ko yaakaar ci dara gis nit na garder dignité booy lépp man sama écrit ban booy moo fa sañ a taxaw naan ma ay lii lii la ñuy def wax ma rek ban booy moo sañ a taxaw di di dindi di di di dindi li may wax waxal kan. mais est-ce yi bokk na yow euh, sa leader sa rakk la kooku sa rakk lay na leader non non sama équipe bëri na leader sama bëri sama équipe ñaata ponkol ñoo fa nekk ñaata booy ñoo fi nekk di bëri bëri gannaaw combat bëri nañ. ñoo fi nekk di lim comprendre mais charisme nit da ko war a am. ça n'a rien voir. am ñoom dañ ne affaire complexe yooyu affaire dañoo ndeysaane. xam nga dañu fii di dañoo yërëm tëlu di complexe ay promoteur complexe ay mbër nañu bàyyi yooyu dañu war a diriger booy fii amul kenn ku fi mag sa président écrit. d'accord Babacar voilà. Euh, Zos euh, Garga moom mooy leader am mais Garga saison blanche yi dafa bëri. Uh-huh. Babacar pour la pourquoi euh, Garga moomu di bëri ay saison blanche alors que fii am na ay ay ay adversaires yu bëri ci làmb ji. lan moo war a saison planche yu bëri yooyu. non loolu peut-être ay ay ay propre principe xam ni ko dafa ay principe de fonctionnement. man euh, par exemple man je donc dafa am benn esprit boobu moom laay demee. esprit boobu du du du bousculer nit. ah di ko wax defal lii te arrangé wu ko. d'accord loolu nag souvent damay bàyyi nit mu libre sax ba de telle sorte que. Mhm. dina jàpp na sax. ah ñeme ma ko wax yéen nii wala mais man may bàyyi nit mu am liberté mooy esprit anglophone moo ne ci man mm-hmm. bàyyee ko boppam waaw parce que boo bu dee bu dee da nga da nga majeur mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. jàpp na yow war nga mën a parce que calculam mënuma ci dox quoi peut-être buñ ci waxtaanee mën naa ci dox ndax man tolloon naa benn année boo xamante ne su ma jëlee te chaque année benn combat la ñu jël du ma ko dépassé parce que dama nekkoon xale donc dama doon daw ak âge bi saa yi dëgg xëy na moom business am wala calcul am loolu la ko jox. est-ce que séntu nga ko fu sori. mais bien sûr mais déjà sax fi mu nekk position bu baax la. c'est une bon terre nekkul nekkul fi nga naan ndeysaane. Mhm. c'est que aussi yàlla lu mu dogal aussi nit ki bu dara jot bu waree jot rek day jot. yaakaar nga ne dina bëree ren. mais pourquoi pa am na ay proposition ay promoteurs yu koy seet si pour tëggal ko. combat pourquoi pas pourquoi pas. pourquoi pas am na am na am na ay proposition mais doon tudd digganteem ak mhm. waaw yooyu yëpp amoon na fi yooyu amoon na fi mais après déggaatuma suite bi donc voilà par entre temps voyagé na donc mi ngi nekk ci activité am. d'accord mhm. Mhm. Jos nga may ñu rek ñu remercier bu baax a baax suñu partenaire bi di Huile J'adore di huile ba nga xamante ne bii macha allah yaakaar naa population Sénégal yëpp xam nañ ko li mu mën bëri na mën na yaasa <laughs> mën na ceebu jën bu tooy xepp bu xonq wala bu weex. sama mbokku célibataire yi nga xamante ne bii nag ñoom dañoo bëgg lu yomb omelette rek lañ bëgg bii moo ci mën mi ngi noonu jos ñam nga ko wala ñamagoo ko. non bii laay dundee. bii ngay dundee waaw. li ci gën a neex consommer local la. amul cholestérol amul dara. ñu ngi jaajëfal bu baax a baax directeur général bi di Abdou Aziz Ndiaye. jaajëf moom mooy suñu partenaire numéro un jaajëf. waa Iwil Zador di woo également yeneen euh, sponsors yi. wala yeneen entreprises ñu def ni ñu def ni Zador. na leen seen i porte bu ñu bëggee euh, participer ci ci émission bi rek. ubbil na leen seen i porte heure bu ñëwee dinañ euh, def benn partenariat gagnant gagnant ñëpp gis si seen bopp. di bëggee Leewtoo di bëggee Thialis nag ah. Mm-hmm. Thialis mi ngi def liggéey boo xamante ne le l'État a besoin. Mm-hmm. lui il a besoin de de d'un encouragement mm-hmm. venant de l'État. parce que boo loo xoolee Pape Thialis. bi mu ñëw ci làmb ji làmb ji mi ngi ñëw en crise. exactement te moment boobu. am na promoteurs yi bëri nekk fii dañoo bàyyi. déglu ma fi wax de. dañu bàyyi làmb. ne bàyyi nañ làmb. yenn promoteurs yi ay fonds Covid dañu dégg dawaat ñëw di tëgg làmb koo bëgg koo jagleel loolu. non dañuy waxtaan non non non non. oui ay jagleel. dëgg pour ay jagleel waatee. Mhm. dama lay wax wax man. Mhm. man damay wax parce que dama bu ma bëggee wax nit mënu ma teree wax. d'accord Pape Thialis moment bi nga xamante ne làmb ci la méttee. Mhm. ci la ñëw jàpp ci làmb ji. te dafa jàpp ci social mooy dafa def làmb pare dooro sa def dooro sang. loolu laa ko gën a encouragé. moom jë jël na mbir yi sax dinañ jàngal lan mooy dooro sa donc du dara nag mosuma jox un franc. barki alxuraan mosuma tëggal làmb. Mhm. mais li mu def ci lu nice. Mhm. le président de la République dafa soxla ay nit yu mel nii ñoom la war a pousse encouragé leen nga xamante ne xam naa ne xalaatul parce que dem ba kii ak nag moom moo fi mujjee ñëw lan moo tax mu indi journal parce que bëgg na làmb. mais kon ci félicitation à lui. jaajëf Zos. waay bon courage waay jaajëf <laughs> en tout cas franchement waxtaan bi neex na lu ñu sax euh, temps bi moo ñu njatt rek par rapport ak euh, question yi ñu préparé woon yëpp parce que ku nekk xam na ne Zos euh, ni muy ambiancé ci làmb ji noonu lay ambiancé ci ci ci ci plateau. day am day am deuxième kii. incha allah day am deuxième round day am deuxième round. day am deuxième ñëw dafa am yu may préparé yu bees. voilà su ma ñëwee naa leen defaral bagage bu baax. amul benn problème ñu lay xaar boo ñëwee ñu defal la bagage bu baax. dina jamono lañu wax dina jamono. <laughs> kontaan nañ bu baax a baax ci Zoss di kontaan ci mbokki internet yëpp yi ñu doon topp ci Leewtoo TV wante du ma jóg di leen ko wax. huile Jador mooy diwlin bu baax bi. consommer local la doomu réew mi moo koy defar fii lañ koy defaree ci réew mi dem leen geen wuti ko di ko toggee mën na ceeb mën na mbaxal bu tooy mën na omelette pour sama mbokku célibataire yi. sa genre Assane yi. <laughs> ngeen jëf mbokku internetu Leewtoo TV lii moo lii moo doon seen sixième numéro jotaay lamb tey ñu amoon mbégte nag jàkkaarloog Zos wax dëgg yàlla mu nekk nit ku disponible nit ku libre nit ku am esprit d'ouvert également ñu leen di jox rendez-vous jeudi prochain euh, incha allah jërë ngeen jëf.